dans le cas du Sénégal et de l'Afrique c'est très compliqué il faut que état dugal ci loxoom il faut que état dugal ci loxoom mais il faut que mooy li ñuy wax euh, encadrement bi cadre institutionnel et juridique bi avant mu ciy dugal loxoom foog mu teg ay garde-fous ay garde-fous yoo xam ne dina ko permettre euh, mu mën a contrôler. Euh, la man financière bi am ci ci ci sport bi en général que ça soit CNG ak fédération yi oh. donc dans ce bu dee loolu par exemple da ngay gis yenn pays africains yi dañuy gis benn secteur par exemple le secteur des jeux ñu ne euh, cinq pour cent dañ koy jox euh, dañ koy jox le sport cinq pour cent de la du bénéfice sport lañ koy jox ñu repart ñu partagé ko les différentes euh, fédérations selon seen taux ni ñuy participer ci compétition yi le taux de les le taux de licenciés donc yooyu yëpp dañuy xool par exemple France euh, les clubs professionnels ñoom aussi dañuy financer le football amateur et ñoom seen revenu yi dañuy am na lu ñu ciy jël loo xam ne c'est pour se destiner au football au football amateur. mais lu bëgg defar fédération de lutte voilà. non fédération lutte bon xam nga wax boobu débat boobu yàgg na. Mhm. parce que c'est CNG normalement c'est c'est c'est transitoire. Mhm. c'est trans c'est transitoire donc euh, mais pour le moment le CNG est là je pense que. Mhm. CNG mi ngi góorgóorlu malgré mal malgré tout même si. Euh, avec beaucoup de problèmes